observateur xëyee xibaar bu yéeme ñeel soxna Ndella Madior Diouf ak i tu tànkam yéene kaay bu immeuble El Hadj Eliman Ndour ne juróom-benn liir faatu nanu fa ñu rob leen ci anam yu dëppoowul ak yoon ñu ne Ndella Madior moo daa signé certificat d'essai ci turu kuréelam gii di SOS santé observateur ne animateur rajo Safir FM bi di rajoom animateur bi moom moo doon rob gune yi ci anam yu dëppoowul ak yoon waaye def nañ ko garda bi libération moom ne gën caa juróomi liir faatu nanu fa yéene kaay bi ne muy Ndella Madior Diouf di assistant bi doon gérer soxna yi mucc ak juróom-ñetti agent yeneen yu pouponnière bi daañu leen defeere tey ci talaata ji Sénégal wàllu justice ak jàmm wotey palog njiitu réew 2024 yu ñu ubbi ba ci ñëpp yu andit ak it leeraange gu mat sëkk loolu lépp bokk ci xutbay jàngu bi ca Sud Quotidien xëye ko tey jàngu bi ngir feet ak Noël gu juboolee xel ak xol yépp Le Soleil it fësale nataalu kilifa gu tedd bu jàngu bu Sénégal Monseigneur Benjamin Ndiaye yéene kaay bu an waat ci digley jàngu bi ci wàllu jàmm justice ak jàmm sunu borom wotey palug njiitu réew 25 février 2024 nag tax na ñëpp di jàmm muslu ndax Sénégal boo ko seetloo saa yu fa fitna yeewoo rek soo ko toppee ba mu sës fa mu sosoo ci politique la tribune moom xëy ne sénateur yenn yi ci Amérique ñu ngi yëglu ak artu président Macky Sall di sàkku wote yu leer ñu war a bokk ñëpp bokk te nu may opposition bi it mën di def ay ndajeem di rassemblement ci lu ko dara dul fekk wàllu candidat yi nag ngir wote yi le quotidien ne tey la ligne d'arrivée bi maanaam bu minuy jotee la ab bu mujj bi ngir ñi bëgg a déposer seen i dossier yéene kaay bi ne RND moom ñot di war na candidature am teg ca di ŋàññ ni parrainage yi demee l'info xëye Mouhamed Boun Abdallah Dionne Bougane bokkit yooyu candidat mu jàpp ne bis bu bees ak bu ànd ak doole mooy jóg Sénégal dafa samp nëndam moom Mahammed Boun Abdallah Dionne mu ne ngir ànd ak sénégalais yi indi coppite yi askan wi yëpp di xaar mu ne njariñal réew mi rekk nag ak bu askan wi moo waral mu taxaw ngir bokk réew mi it fi mu toll ci wàllu tension politique yu tar ci tëw a jeex laaj na ñu dëppoole xol yi ci lu dëggu ci gis-gisu Mahammed Boun Abdallah Dionne beneen mbër di Bougane Gueye Dany mu ngi ci yéene kaay bi di le mandat mu ne su faloo dina xeex ger bu baax ci réew mi ñu des ak le mandat ak kàdduy docteur Malick Diop ci mbërum Benno Bokk di Amadou Ba mu ne moom Amadou Ba nekkul ci wut bës diggee ak a fexe xew waaye dëgg lay doxal xam-xam ngir fexe jëmmal politique publique yi nu tëral ngir njariñu askan wi Ousmane Sonko moom bis bi le jour ne déposé na candidaturam ci lu àndul ak parrainage na ko noonu attestation caution yénni kaay bi nag ñettay mun a am benn ñu gàntal dossier am rek bu matul wala mu am ndam ci kanamu cour suprême wala it ñu tàllal ñaret plan B bi yénni kaay bi di réew mi nag mel ni ku naan du Ousmane Sonko rek waaye candidat yi déposé yépp nekk jamono yi ci xiini mi ni nangul seen dossier wala dañ leen koy delloo mbër meneen ci yéenekaay bi di réew mi muy Boubacar Camara moom la mu jàpp mooy nguur yi fi jaar ba fii yépp dem nañu ba sës wane fa nu mënee mbër mi jaaxal source a nag moom mooy Abdoulaye Sylla patron club de préférence nationale daa wàcc ndakaaru ñu ne akub jet privé di roplaan boo xamante ni ba fii Lionel Messi rek moo ko wàcceegum ndakaaru ci suuf roplaan biit ñu ne ay daamar yu yéeme yu bees tàq seer lool lu mel ni V8 2023 bu am 36 haut waaye ñu ne daamar ga leen gën a yéem nag bu mu wàccee mook soxnaam ak i doomam mooy Bentley 44 2023 édition ak i bouton wurus 24 carats lool ak sunu boîte savon yi ni dawal waa Mbour ñoom di gërëm bu baax ministre Moustapha Ba direct news xëye ambulance médicalisée bu mu leen baaxee ñoom centre de santé ba fa médecin chef ba rafetlu ko lool ne ndimbal lu ñëw ci waxtoom la ndax dañ daan obligé di àbb ambulance ngir rawale malade yi daaju l'hôpital ba it ba tey ak waa stade yi di yóbbu fu mel ni diwaanu Thiès ak ndakaaru digg na fa it moom kilifa gi ñaar fukk jàpp fanweeri lal ngir ba tey centre de santé bu mbuur askan weneen wuy xaar ak taxawu ñenn ñi dëkkee ci gox yenn ca tubaab Mbàkke bis bi la jour nañ ci mel ni waa Gédé Daaru Minam jannatu fépp am ñàkkum ndox ab diire ngile centre de santé bu fa sax ayu bés ngi amulam ndox maaw raxmati naam akuk njàmbaaram waaye dëkk bu ci boppam dëkk bu sell bi dëkkub seexul Xadim bi mooy màgg macha allah